واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan fi GMT TV ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen siyaara Euh, di fas yéene incha allah ni ñu leen ko waxe woon ci annonce bi programme bi am solo bi nga xam ne GMT euh, TV mi ngi koy fas yéene amal tey jii nag ñu ñëw ci benn ci ponki programme yooyu ñu leen doon euh, wax fan yi yëpp muy émission bu mag bu am solo boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee gàggantiku gàggantiku nag dañuy dem ci boroom xam-xam boo xam ne danañu indi benn ponk ci ponk yi nga xam ne diine daf koy laaj tem laaj tamit nit ñi Eh, fàttaliku ci te gàgganteku ci ngir ñu xam dëgg-dëgg lan mooy attey loola ak teggin ya ak lu ci lislaam wax tey jii nag ñu indi ponk bu am solo boo xam ne xam ngeen ne eh, fan yi eh, gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi mu aajee ñu gàggante ku ci gën cee indi ak leeral muy lu aju ci wàllu atteb jullee néew jullee néew kon tey dañoo ñëw ci sëriñ Mbàkke Abdourahman mi nga xam ne xam ngeen ne kenn ku nekk xam na ne ab mufti la te it kuy ubbee la ci wan fànn gi rawatina lu aju ci wàllu attey fiq yi ak yu ci aju ñu laaj ko lan mooy atteeb jullee néew ak yan waxtu lañ ko war a def ak it ponk ban ponk la sunna la wala farata la wala fardu ayni la wala wala déet loolu lañ bëggoon suñ sëñ Mbàkke Abdourahmane euh, indil ñu ci ak leeral ci ponk yi bi ak waxtu yi ak it lan mooy ab atteem kon ñu bokk déglu sëriñ Mbàkke Abdourahmane aouzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ abdul ahad maa lay nuyu di nuyu sëriñ abdul qadir di nuyu mbokk yi teewlu ëttub xam-xam bi yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel waaw lu jëm ci jéem tontu laaj boobu mooy jullee néew ñu leeral rek ne xëy na li ñuy wax nag ci mazhabu imam Malik nga xam ne moom lañu ñu sëriñ bi dénkoon incha allah ci lañ koy tënk di wax ne julley néew ci santaane lislaam yi la bokk bu dee ci mazhabu imam Malik nag fardu kifaaya la ci mashhurul mazhab doonte am na ci seen biir ñu wax ne sunna la fardu kifaaya nag mooy loo xam ne bu ko ñëpp gàntoo te man ko ñëpp am bàkkaar waaye su ko ñenn defee nag mu wàcc ñu ci des ñoom dañuy wax ne sang néew ak jullee ko ak suul ko ak sangu ko ñett ñeent yi ñoo bokk àtte yëpp fardu kifaaya la ab jullit bu faatu woon mbooloom jullit ñoom dëkkal ñoo ko war a sang ñoo ko war a sang ñoo ko war a jullee ñoo ko war a denc bu ko buñ ko gàntoo ci amul gànt ñu ñëpp ab bàkkaar waaye nag bu ko ci ñenn féetewoo ñi ko féetewoo ñooy am tuyaaba ji loolu mooy al mashhur ci masab bi donte nag am na ci biir ñuy wax ne sunna la mashhur fi ñu ko teg mooy li borom bi wax ci alxuraan wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa maatu hum fasiqun dañuy wax ne aaya ji day tere ku jullee néew ku faatu ci kéefar kon dañ ciy dégg ne ku faatu ci lislaam dañ ko war a jullee donc seen dalil la bi ci des suñu waxin ne yonent bi ku mas a faatu jamono julleen la loolu dañ koy saxal am nag ñuy wax ne eh, sunna la di ko delloo ci xadis bi ngeen ki ñëwoon laa lan moom lan la yàlla farataat ci man mu ne ko julli yu juróom xanaa nga def leen ngir coobare woo mooy ko sukkandikoo ne kon sunna la kon ñaari wax yi am na ci waaye lii jiitu ci ci mazhab mooy jullee néew fardu kifaaya la kon muy lu am solo loo xam ndigal la ak ñaan la am na juróomi ponk nag moom jullit yi yéene ji mooy jiitu xam ne néew bii nga fas yéene ñaanal kabar yi ngay kabar ñeenti kabar li doon kon kabar bu ne te tolloo ko diggante kabar morom ba dañ fay ñaan kon yéene ji farata la taxaw gi ngay taxaw ngir jullee ko farata la ko amul ngant daa war a taxaw euh, ñaan gi ñu ñaan diggante kabar ak morom ma farata la Euh, sëlmal gi ci julli gi farata la euh, kon yéene ji taxawaay bi kàbbar yi ñaan gi ci diggante bi ak sëlmal yooyu mooy farata yi nga xam ne munu bu ci benn manqué rek julli gi du baax bu ci benn manqué julli gi du baax ba ci sax nit ku ñu rawoon ba dikkoon fekk ñu tàmbulu lu jullee néew bi dañuy bëgg nga dem ba ca kàbbaru ñaareel xante day mel ne bu imaam kabare tàmbali jàng nga ba raw la bu dikkee taxawal ba mu ne ba kabaraat nga ànd ak moom ñaan bu kabar yi matee bu imaam sëlmal da nga deseew bu fa bàyyee néew ba nga àggale ñaan gi kabar yi ba matal bu fekkee nag dañoo sëlmal rek yenu néew bi moom sësëleel kabar te bàyyi ñaan gi daal di mottali kabar yi te sëlmal moom kon loolu mu leer bu ko defee nag jullee néew waxtu yëpp yépp lañ ko mën a def bu ngànt amee ba mu des rek jamono yi jant bi di fenk jamono yi jant bi di fenk ak jamono yi muy sow diggante boobu moom nga dàkk ko di ci jullee dafa xaram bépp néew buñ ci jullee ci lu dul ngànt jullee ga baaxut dañuy santaane ñu waat ko am nag yeneen waxtu yoo xam ne dañ ko sib kon day mel ni am na ñetti waxtu waxtu wum dagan ak waxtu wum sib ak waxtu wum araam waxtu arab mooy jamono yi jant bi tàmbalee fenk ba muy fenk ba matal ak jamono yi muy tàmbalee so ba muy so bàgg waxtu yi moom dañuy wax ne di ci jullee am néew ci lu dul ngan dafa dëgg moom buñ ko defee jullee dañ ko a baaxut bu fekkee ne dem na ba jant bi lang ñu wax takkusaani suuf foofa dañ koy sib ba jant bi tàmbalee so bu sooyee ba noppi dañ koy sib ba buy naka noonu bu jant bi eh, feeñee ba naaj tuuti li ñuy tudde isfaraar maanaam isfaar mu leer naññi foofu dañuy sib ba jant bi tàmmulee fenk mu araam bu fenkee ba noppi ñu sibaar ko ba mu yëkkatiku lu tolloog ñaari meetar kon am na diggante yoo xam ne ay yu la ci biir yu araam yi loolu lépp nag mooy bu ngant amul waaye néew boo xam ne fi mu ne nii am na lu tax buñ ko ko jëlewul léegi-léegi mën na yàqu doonte jant baa ngi soo dañ koy jullee ay nag bu fekkee ne ci jàmm la nekk ngant amul moom dañoo taamu bu dee ginnaaw takkusaan mën nañu jullee néew loolu amul benn borom xam-xam ci ngir yi ngir yi ku ko wax ku wax ne jullee néew ginnaaw takkusaan daganul imam Malik ñoo gën a taral ci tere naafila ci waxtu yooyu ndax ñaari wax yi am ci sala jullee néew day xaw a feeñ foofu moo tax ñu dañ ko jox atteb ndax bara waxtu yi ñuy tere la dañuy wax ne naafi euh, naafila foofu liñ jublu mooy lu dul julli juróom naafila la dañ koy jàpp nga xam ne nit ki bu niseeroon ne war na ma julli nangami rakka farata lay doon ci moom waaye day dugg foofu foofu dañ koy duggalaale jullee néew war tax ñu wax ne ginnaaw takkusaan ba ba jant bi lang jullee néew mu dagan bu jant bi langee ba tàmbulee sono dañ koy si bu ngànt amul ngànt mooy néew boo xam ne buñ ko julliwul léegi-léegi lor mën na ci am kooku moom waxtu yëpp lañu mën a bu dee jàmm di moom bu nee ba jant bi lang mën nañ moytu foofu ku ñu julli ginnaaw takkusaan li gën mooy bañ a sori ginnaaw takkusaan ndax jullee néew ak denc ko jamono yi jant bi lang daa bokk ci liñ si maanaam jullee ci néew ak denc ko ci sax na ci xadis yonent islaam wax dañuy tere jullee néew jant bi langee ak di ci rob doon tere sax benn saxaaba yi ma ko wax dañu doon tere jullee suñuy néew ak rob leen jamono jant bi lang waaye bu fekkee ne jëmmi jullee ji nag ginnaaw jullik suba ci saase kenn terewu ko ginnaaw julli takkusaan ci saase kenn tëriwu ndax ñi jàpp ne sunna sax la mazhab ma day jàpp ne fardu kifaaya la mooy almashhur waaye yeneen ngir yi jàpp ne sunna la dañuy wax ne jullee naafila ginnaaw takkusaan gi ñuy tere mooy naafila gu amul sabab ñëwoon rek bu waaye julli yi nga xam am sabab bokk na ci jullee néew am sabab bu ko wat tahiyatul masjid am na sabab mooy dugg ci jàkka ji ñoom dañuy wax ne tëriwu bi doon wax moo waral ci mazahib yooyu nga fekk euh, ginnaaw takkusaan dañ lay wax ne boo duggoon jàkka ji da ngay naafila ndax taxitu masjid julli gu am la kon amut ci ngër yi ngir muy wax ne ginnaaw bu ñu sëlmee takkusaan dañuy tere naafila kon Malik euh, mi nga xam ne day tere naafila waxtu woowu moom naafila la fi tere jullee néew ci moom fardu kifaaya la dagan na fi ba jant bi lang bu ñu door julli suba dagan na ba muy leer mu tàmbali ñu sib ko ba jant bi tàmbalee so mu araam ba mu soba noppi mu sibaat ñu sibaat ko bu julli bi timis loolu mooy li li sax ci waxi borom xam-xam yi kon daal mën nañu jàpp ne euh, jullee néew bu dee néew boo xam ne am ngànt mën nañ ko jullee waxtu yëpp bu ngànt amul sib sib nañ bu takku sànni suufee dem ba naaj wi weexatul diggante bu ba jant bi tàmbalee so rek dañ koy si bu tàmbalee so day araam ba soog nopp naka noonu bu tàmbalee fenk ba mu fenk fa nopp waaye fi ñuy door a jullee takkusaan ak fi ñuy door a jullee suba te leeragut kenn terewu fi jullee fi mu néew kenn terewu fi su jootub alxuraan ci mosa bi dañuy sett yooyu dañuy wax ne ginnaaw takkusaan dañuy tere naa fi la waaye maye nañ fa jullee bu néew ba jant bi lang maye nañ fa su jootub alxuraan ba jant bi lang bu dee ginnaaw suba noonu ba jant ba muy leer mën nañ faa jullee néew mën nañ faa jullee mën nañ faa sujud alxuraan bu dee yeneen ngëri nag ñoom nga xam ne dañoo daganal naafila gu am sabab ñoom sax waxuntuñu dañ moom ginnaaw eh, ci ñoom jullee néew naafila la waaye naafila gu am sabab la kon mën nañ ko def ñoom dañuy wax sax ne waxtu yëpp sax baax bañ même waxtu ñuy sib ni ñoom bu dee yi dañuy wax ne dàkk ko la ñuy bañ maanaam nga xam ne yow daal yaay jublu di yeexe yeexe ba heure waaye ñoom bu fekkoon sax ne dafa am ay ngànt wala ñu jógee fu sore ba yeex agsi nga xam ne ko woon far mu daje ñoom waxtu wuñ ko jullee ba baax na ñoom waaye soxal fi ñu mooy mësab imam Malik nañ xam ne jullee néew ginnaaw takkusaan ba ba jant bi lang dara nekku léeg-léeg sax na mu gën ndax naaju tàng bi lool lii ko ëpp yërmande ndax dañoo bëgg bu ñu jullee ab néew lu gën a bari ci ay nit teew fa di ko ñaanal loolu lañ ko santaan kon mu doon waxtu woo xam ne nit ñi danañ mën a ñëw daa bokk ci li te ci li loolu jar bàyyi xel baax baax waaw kon loolu mooy jullee di yiwu bari nag boo xam ne yonent ay salaam nee na teewee julleeg néew tiyaabaa nga ci teewa rob ga tiyaabaa ci tiyaaba jutal ne aw dog ñu ne ko luy loolu mu ne lu toll ne jabalu uxut montagne mu toll ci tiyaaba ku fekkee julleeg néew am nga ku fekkee rob nga ko boo fekkee julleeg ak rob nga ñaar ñaar yooyu ñu bàyyi xel ne yomal xiyaam dañuy peese jëf jëf juñ naa la diise na ne montagne mu oxut nag kon aw yiw la kon teewee jullee néew yiw la ndax bokk na ci yi nit ñi ameel sa mbokkum julli bu faatoo bu woppee nga seeti ko hmm? bu faatoo nga gunge ko gunge gi nag mu ngi tàmbalee ci teewee jullee gi waaw mën nañ ko leeral ci jullee mu lu am solo loo xam ne war nañ ko fonk jox ko yitteem waaw xëy na bàyyi xel rek bu baax a baax euh, gi bu ñu def ginnaaw takkusaan ne léeg-léeg takkusaan day gàtt ñaare boo yeexee rek bala ngaa ba noppi muxtaar yi mu jeex waaye muxtaar yi moom mën nañ ko ci jëlee baax baax dana baax sax ndax dana may nit ñi ñu bare bari mën a teew ndax ci la nit ñi jot ci la tàngooy di gën a wàññi ko bañ mën ko denc ci ñu gën a baax mu ñu ngi jégalu nag mbokk yi di leen balaax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Euh, jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ci tontu yu leer yi nga xam ne tontu nga ko ci laaj bi nga xam ne moom lañ doon laaj ci émission bi nga xam ne. Euh, wala tomb bi nga xam ne ñi ngi koy def mu aju ci programme boo xam ne GMT TV mi ngi koy def muy e, ñu tuddee ko euh, li ñuy wax gàggantiku gàggantiku nag incha allah danañ koy def weer wu jot euh, ci ngeen koy topp ci seen GMT TV muy lu mel nii rek moo koy tax a jóg su fekkee ne am na benn ponk wala benn mbir moo xam ne ci diine gis nañ ne tisaaroo na te ñu gis ne Euh, werante yi tàmbali na ci am faw ñu seet bon borom xam-xam boo xam ne danañu ci indil ay leeral waaye nag sukkandikoo ko ci ngirum imam malik mi nga xam ne ñun moom la ñu sëriñ bi joxañ ngir ñu jëm ci kon li wax lu leer la waxtu yi nga xam ne ñi ngi ciy joxe ñuy taxaw euh, néew yi muy ginnaaw tusbaar fukki waxtu benn ginnaaw tàkkusaan yooyu yëpp ci dëkk yi di Touba yeneen dëkk yi nga xam ne euh, gis nañ ñu ko fay def waxtu yu dagan la yoo xam ne Euh, euh, borom xam-xam yi aju ci ngir mi ñëpp ànd nañ mu leeral ñu tamit lu am solo mooy far fardu kifaaya la kon dafa mel ne am na ñeneen ñu koy wutal yeneen waxtu yoo xam ne xëy dañ ko jàppee sunna wala dara kon li sëriñ bi wax leer na bu dul waxtu woo xam ne jant bi mi ngi so mi ngi dugg wala jant bu waxtu woo xam jant bi mi ngi fenk ba ba ba ba ba mel tolloog ñaari mètre bu dul waxtu yooyu rek kon waxtu yëpp dagan na kon loolu leer la loo xam ne yaakaar naa incha allah bokki taalibe yëpp Euh, ak bokki jullit yi danañ ci jariñu bu bax a kon ñu ngi leen di jox dig daje incha allah euh, fii ak euh, weer ci beneen numéro boo xam ne dañuy dajewaat ak borom xam-xam boo xam ne dañuy ñëw moom ci benn tomb boo xam ne danañ ci gàgganteku asalaamualeykum ko rahmatullahi wa barakatuh واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتدفع عني كيد كل ذي اعتداء